farata waaye ku ko am te mën ko jaamu yàlla la gu rëy rëy ci yow te yaaba ju mag a mag nga ci amee waaye nag nga teg ko ci yéene ju sell te yàlla rek tax ndax nit lépp lu muy def te fekk yàlla taxul daanaka du ci am dara amul importance nga jënd xar mu mag a mag a mag te matul tabaski mën ngaa jënd xar mu tuuti tamu mu mat tabaski fàttaliku leen ne bisa ngi ñëw boo xam yen yéen dangeen dellu ci seen borom te importance bi xutba bi doon wax tamit mi ngi ciy wax naan Seydina Muhammad doon na wax ne yéen ci seen diggante moytu leen di tooñante moytu leen kenn ku ci nekk ci sa deru moroom sa deru moroom ngay wax ci moom lu amul wala sax lu am loo xam ne nii bu doon yow doo bëgg ku la ko nettali moytu seen alal bu leen ko jël te neexu leen moytu seen njaboot wax na ne tabaski maanaam war na képp ku kum mën ci doon moo xam ku am la wala ku amul